dëgg du dëgg du dëgg du dëgg bu jibile nag mais bind leen alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy trois fois beneen bi ci topp mooy yéen ngeen di xeex ak kenn nit 2021 ba 2023 te mosu leen a am ndam ci koom tey ngeen jox ko ko suba ngeen ñàkk ko koo jox maître El Hadj Diouf nag yow topp nañ ay sources yu leer et sûr que ne yow da nga bokkoon ak Ousmane Sonko gel temps yi ngeen nekkee xale yow moom Ousmane Sonko mës naa jël maanaam sa sa sa nekkaale parce que lii nekkatul mbañeel kese yow mbubu mu nekk sol nga ko depuis ce matin jusqu'à présent yaa ngi changé mbubu pour jàkkaarloog journaliste yi pour mën a yàq victoire bi nga xam ne am nañu ko tey ñun nag nekkuñu fi di jubile man jubilé wu ma parce que jubilé bu njëkk ba bu ngeen fàttale ko ba ñu xëyee la matin ñii nga hôpital ñii nga ca pharmacie ñii nga ca médecin yi man maa jubilé tul ci jamono juñ toll nii nañu continuer rek ak sunu conscience bu tranquille savourer sunu victoire té di xol fan la wanante di ko gëtam ndax ñom ils sont capables de tout et ils sont prêts de tout xam naa di ngeen defar